benn affaire bu ndaw mooy octobre rose bi daan nañ so sol pince yi buy démarrer. waaw moom laa bëggoon jeexale mais bon. waaw kon kon kon après mën nañ ci ñëw. boo boo ci boo ci boo ci. ci boo ci tolloo. Euh, mais Der gis nga man xamal la laa gis ci liberté yi il faut pas qu'on tende vers une dictature du père. au Sénégal man j'ai l'impression que depuis couple Diomaye Sonko ex au pouvoir dañu am article quatre-vingt bis article quatre-vingt lañ xamoon mais dafa am mel ne dafa am article quatre-vingt bis moo am Sénégal parce que dafa bëri ñu ñuy woo bu ñu demee ba entendre leen li ngeen wax premier ministre bi lañ leen di wax te gis nga démocratie wu Sénégal dafa am lu ñu ci xeex ba yegg si fii nit mënul wax ci àdduna ba ñu bàyyi démocratie boobu nit di ko nasaxal ak koo mënti doon dans un pays ou on permet Cheikh Oumar Diagne def offense à Cheikhul xaddim def offense ci murit yépp ñu mën a comprendre muy xëy palais di fa dugg di génn réew moomu waruñoo woo Bougane Gueye Dany naan ko li nga wax premier ministre lan la réew mu Cheikh Oumar Diagne di def offense à Cheikhul Khadim di xëy palais réew moomu kenn waxu fa waru fa wax offense au premier ministre warul am te article quatre-vingt bis mënul am Sénégal Sénégal aussi mënul tendre vers une dictature du PM du premier ministre mënul nekk cette démocratie bii bi ñu koy xeex Ousmane ko amagul woon engagement politique mi ngi woon buroom impôt domaine toog taal climam moment boobu man maa ngi taxaw dami danielle Brottier dóor ci taabal yi yuuxu ñu jàpp malal mi dugal ci mbalka mi jàpp caat di diri cette démocratie bi nga xam ni 2011 bi ñuy ñàkkante ñun loolu tey mu defaat ay fukki at ëpp ko ci kanam dafa am sentinelle yoo xamante ni dañoo pare pour taxaw démocratie boobu moo leen gënal seen bakken te nit mënu leen ci intimider nit mënu leen ci tiital mu laal ñaari nit yoo xam ni mujjee laal nii mujj parce que njëkkoon na muy Bougane Gueye Dany ak Cheikh Yérim Seck kenn ki di opposant politique di chef d'entreprise keneen ki di journaliste kii patron de presse la kii di journaliste ñooñu boo leen laalee dama ko tuddee ni pomme de wala pataas bu tàng lay nekk sa gémmiñ bu yàggee sa gémmiñ lakk saw làmmiñ boo ko jàllalee mu xotti sa boli boo ko yàbbee yàbbi dafa ñaaw te mujj nañ koo yàbbi parce que boo laalee quelqu'un comme Cheikh yirim que je connais muy suma grand kooku balaa moo servir Sénégal à l'échelle internationale la njëkk a liggéey parce que Jeune Afrique la Cheikh Yérim njëkk liggéey ci wàllu presse avant loolu Nations Unies la nekkoon PNUD la ne ñu décroché fa ko mu bind spectre bu échec wu Afrique bind loolu produire ko Bachir Ben Yahmed woo ko Jeune Afrique pour recruter ko muy boroom xam-xam bu yàgg. dem fu nekk ci àdduna bi di def ay reportage liggéey ak ay chef d'état yu bari mën na la neex mën na la bañ a neex mais boroom xam-xam la journaliste la boo xam ni reconnu en Afrique bi nga ko laalee loo seetlu RFI Reporters sans frontières mais UIG Union internationale des journalistes àdduna moo bindandoo pour yëglu ni droit yi ak liberté yi ñi ngi koy laal Sénégal CAP fii Sénégal CAP bind société civile bi ku ci nekk réagir waa mais Bougane Gueye Dany ay centaines de sénégalais la employé ñuy liggéey muy un opposant am droit wax xalaatam Ousmane Sonko moom mën a utiliser baat yoo xam ne man duma ci jaaraat man baat yooyu maa ngi analyser depuis ay at mais man am na wax yoo xam ne mosuma toog fii wax ko mais Ousmane Sonko muy utiliser baat yoo xam ne buñ ko ko delloo moom mu metti ko. loolu c'est extrêmement grave di maanaam tu aimes insulter et tu n'aimes pas qu'on t'insulte kilifa dafay tàmbalee di wax kaddu yu rafet bu bañee ñu ko koy delloo des chiffres falsifiés des chiffres erronés bokkul ak nga tiim ay kilifa ni leen vous êtes des menteurs vous avez menti waaye léegi bu keneen ki génnee waxaat la menteur yow mais baat bi ci olof gën a ñaaw yaa ko yaa ko wax ce sont tes mots lañ lay retourner boo bañee kàllaama yooyu di dellu ci yow no bul di utiliser kàllaama yooyu set démocratie nag benn mbir rek il faut ñu xam ko mooy nit moo mënula wax ba nit ñi arrière ci démocratie bu senegal dafa am bis boo xamante ni fii neuf morts moo am malal yaa ngi toog foofu maa ngi toog fii fekk buuba voyager man lañ njëkk a jox kàddu ma ni tey dëkk bi jaxasoo na neuf waaye bu ay char amoon ma jaar ci kanamu char yi ñëw toog fii ndax Bassirou Diomaye fay bi nekk président Sénégal tey pourquoi ma kontaan ci seen réaction man Alioune saane ak ñeneen Chaka ginnaaw Chaka amoon ngeen fa ay bureau yéen waa Y'en man Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye mi ministre tey Alioune saane ak ñeneen fa lañ doon réunion wee tudde ko aar li ñu bokk di xeexal Sénégal di xeexal démocratie Sénégal ngeen ngeen nekk tey pouvoir Badara Gadiaga toog nekk sentinelle Alioune Sané doon ko caat doon ko keneen doon ko ñooñu mënoo ni ñu doon ànd ak yow ngeen di xeex di mëne combat mënoo wax ba ñooñu du ñu les combats te les libertés liñ nekk di ci tënk un six mois dafa bari mais seetlu ngeen ñaata manifestation la ñu la ñu autorisé wul mais atel déposé na manifestation di ñi opposition presque ñu bari ñu bañ taximaan yi nee nañ dañuy manifester dañoo am sax ñoo xam ne dañ leen a jàpp ci taximaan yi tëj leen ñu fanaan fa ba guddi ñu téye seeni taxi marchand ambulant yi nee nañu dañuy manifester ñu bañ jakarta maan yi nee nañ dañuy manifester ñu bañ en six mois liñ fi bañ ci manifestation kenn xamul nu mu toll mais suñu grand Madiambal Diagne dama ko déglu tey dem ba ay rapport di voyager mosoo gérer dara lu concerné état ñu ni la passeport diplomatique boo amul ci lim ñu wax moom nee na amu ko boo amul boo ko indiwul doo voyager mun leen amuma ko ñu tere ko voyager tere ay nit yoo xam ni nee nga leen da leen tere voyager te joxoo leen benn kayit mais gis nga set démocratie là dafa am lum ñu jaraloon ñu toog xeex ko nit ñooñu yàgg xeex pour la démocratie du ñu arrière maral 2011 bi ñuy jàpp maak yow ki doon ministre de la justice tey moo doon procureur muy Ousmane Diagne ba tey mu ngi doon ministre de la justice kon mi ngi ci carrière justice am de waaye ba tey ñun sentinelle ñu ngi koy doon pour le Sénégal ni mu constant we la ñu constant we ces gens là li ñu Sénégal jaral man bi ma génnee rëbës ci même bis bi campagne électorale 2012 man ci lañ ma bàyyi ci biir campagne bi bi ma génnee ci même bis bi damaa dem defi meeting ci bis bi laa la wax donc la démocratie au Sénégal dafa am loo xamante ni moom lañ ko jënde te nit ñi duñ ci reculer li may conseiller képp ku nekk ci nguur gi fa laay terminer mooy woyofal bi mu ngi rouge fépp mi ngi sonné foo romb sax dañ la naan Badara li nga wax ci woyofal bi bërki démb yaag buuba billaay gën leen a wax loolu nit ñi sénégalais yi woyofal bi tintet bi seen bopp bi la ne ak rouge bi bu loolu jàllee billaay xam nga dañu doon wax ceeb ak diw mais gis nga jën yi Ousmane Sonko ni woon day wàcc ñëw ba ci kii bi da ngeen koy sax mujj maye tëllu jën rek li muy jar gis nga le président ak le e bi yooyu lañu war a eggee ci ñoom tëll jën mooy. mooy non. tëll mooy buñ daggee jën bi morso biñ lay jox xam nga. day cher pour nga jënd lépp. non la jën la malal. tëllu jën baa ngi cher. pomme de terre gi cher soble si cher café Touba sax dafa yokk. mais tëll moom ah tëll. ku ko xam rek doxaankat nga. subhanallah <laughs> et eh, eh, oh, oh. eh, on change de sujet malal vraiment yow. benn benn virgule waaw dama joxoon sama kàddu.